mbokki jullit yi ginnaaw bi nu sante sunu borom tabaraka wa taala julli ci yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ni jamono jii ñu toll ci la yonent bi alayhi wa wasalaam gane woon àdduna ci weer wi nu nekk ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gane woon àdduna ganek àdduna ak yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam dafa leeral àdduna tëj mboolem bunt yi lëndëmoon yépp gindiwaat doomu aadama yi leeral seenum xel bu baax mayaat leen fit nekk yërmande ju wàcc ci nit ñi ñépp yi nga xam ni way gëm yàlla lañ diirub ba yonent bi sallallahu alayhi wa juddoo ba bis ni tey jii xéewal googu ak yërmande googu ñépp a ci yem ñépp la làmboo moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la mel noonu la yaatoo moom mooy ki gën ci nit ñi moom la yàlla gën a bëgg ci nit ñi moom moo ko wax moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na ana sayyidu walad ibn aadam walla faxar man maa gën ci doomu aadama yi tey puukare taxut ma wax ko dama wuma de dari dëgg nag dëgg moom des koy wax maa gën ci nit ñi yàlla fonk na ko fonkeel goo xam ni bari na lool ci ay aaye alquranul karim yàlla di tudd aw turam di ci takk yonent bi alayhi salaatu wassalaam di nu digal ñu topp ko ñu jaamu ko moom yàlla waaye nag teg ca ak texe gu mag ngir ñun jullit ñi yàlla wax na ci alquran yaa ayuha alladina amanu ttaqu llaha wa aminu bi rasulihi yéen ñi nga xam ni ñu gëm yàlla ngeen nee na na ngeen ragal yàlla ci mbooleem seeni wax ak seeni jëf na ngeen ragal borom bi tabaraka wa taala ci lépp lu ngeen di wax ak lu ngeen di jëf seen dugg ak seen génn ragal leen ci yàlla lu ci teg wa aminu bi rasulihi te ngeen gëm yonentam bi mooy kan muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu fekkoon foofu rekk la aaya ji yam loolu day wone ne yonent bi ku màgg màgg la ndax bu yàlla diglee nañu ko ragal nañu ko topp nañu ko gëm kam ca teg kooko ku màgg la waaye nag mu teg ci beneen xéewal mu ni yutikum kiflayni min rahmatihi kon de sunu borom dana leen jox ñaari wàll ci yërmandem ji yërmandem ji li muy yaatu yaat dana ko xaaj jox leen ci ba ngeen doyal yéen ñan yéen ñi ragal yàlla tan nangoo gëm rasulullah sallallahu alayhi sallam kon gëm rasulullah du lu wayaf ci jullit topp ay ndigalam du lu woyof ci jullit yonent bi daa waxoon ni lépp lu mu leen indil ci ay digal fatu bihi mastataatum na ngeen def la ngeen ca man wa ma nahaytukum anhu lu mu leen tere na ngeen ko bay ci lépp lu comme li ngeen man kon gëm yonent bi mooy lépp lum ñu digal ñu nangu caa nekk di ko def lum tere ñu bàyyi ko waaw ndax foofu rek la yàlla yam yàlla tegaat ci ni wa yaj'al lakum nuuran tamshuuna bihi Yalla dina len defal leer go xamni ci ngeen di ko di ci dox di dem ci ngeen di xamee sen l'islam ci ngeen di xamee ana li bax ak li bon ki nangoo ragal yalla top rasulullah yalla da koy jubanti bopam di ko wanni ko fi lak fele la mo tax yalla muni wattaqullaha wa yuallimukum na ngeen ragal yalla yalla xamal len num len di xamal li bax li ak li bon jeexul de yalla muni wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurun rahim ragal yàlla topp rasulullah day tax nga am lii lépp day taxit nga am njëggaluk yàlla te ngeen da ngeen xam yàlla ku mën a jéggal la te ku mën a la bari na loolu aaya yoo xam borom bi day tudd yàlla di ca teg rasulullah waaye nag teg ca xéewal ngir jullit ñi bokk na ca aaya yooya qul atiu allaha wa rasul fa in tawallaw fa inna allaha la yuhibbu alkafirin yàlla ne na ngeen topp yàlla top rasulullah su ngeen lànkee bañ a topp yàlla nag ak yonentam na ngeen xam ni day man yàlla bëgguma kuy weddi yàlla bëgguma kuy ñàkk topp rasulullah bokk na ci ay wa atiu la wa rasul laallakum turhamun topp leen yàlla topp rasul mooy muhammad su ngeen ko defee yàlla dina leen yërëm xoolal ma karaama googu rasulullah am loolu nag ña fekke woon jamonoom dong du ñoom rekk ko moom de bul wax ni man de jamono yi rasulullah li duma ko am ki juddu ginnaaw rasulullah dem ba doon mukallaf nangoo topp yàlla ak rasulullah lii ci nga bokk bokk na ci aay yàlla ni wa man yuti llaha wa rasul fa ulaika maa alladina anama allahu alayhim min annabiyina walsiddiqina walshuhadaai walsalihin wa xasuna ulaika rafiqa képp ko topp yàlla topp yenentam ñii day di def loolu day yàlla dana leen xéewal ñu ànd ak yonante ya ak ñu baax ña ñu dëgg woon ñu ragaloon yàlla ña ñëpp ma boole leen tàbbal aljanna mooy ñan mooy ñi nangoo topp rasulullah yàlla waxaat ni may ar rasul faqad ata allah képp ku topp yonante bi kooku topp na yàlla kon nañu xam ni kooku muhammad sallallahu alaihi wasallam yàlla da ko fonk ba fu mu jëm ànd ak moom kooku nag moo leeral àdduna moo leeral fay mbool lu doon lëndëm ci àdduna lépp lu doon lëndëm lamp bu doon tàkk di jéem a tàkk ngir lëndëm da ko fay indi lamp leer moom yonente bi alayhi salaatu yàlla yebal ko ci nit ñi mu nekk yërmande ci ñoom yàlla ni wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yonent bi day mu ko ci yéen lu mu nekk ak yërmande ci yéen xéewal képp la ci yéen parce que gi mooy ma wax sànq kii yàlla yebal na ko nga topp ko gëm ko ànd ak moom lim la digal nga di ko def lim la tere nga di ko bàyyi yàlla nee na ma yërëm la yow man qiyam nga bokk ci ñuy taxe man qiyam kon yërmande la ci yow waaye nag yërmande ak rasulullah yëmul képp ci nit ñi xatta bàyyi may sax yonent bi yërmande la ci ñoom benn bis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi dox ba dajeeg benn kéwal bu ñu yeew kéwal zab kéwal gi wax ak rasulullah fekk ànd na Sahaba, ke kéwal gënu ko yow yonent bi yàlla bi man day daa am rëbb bu ma jàpp ma fii ci garab gi te man dama am ñaari doom yu ndaw ma bàyyi ko fële fa ma newoon fañ ma jàppee dama génnoon di leen wutal luñ lekk ñu jàpp ma takk ma fii sama battu bi nag sama ween wi bari na soow lool sonal na ma nag mu ne ko yow bi yàlla yónni te gën ci nit ñi ndax dooma dimbali rek nga tekki ma ma dem nampali samay doom delu ci wat nga takkat ma ndax rëbbub jambor la yonentab yalla bi sallallahu alaihi wasallam ndax bu wala tekke da nga delu ci wat mu ko waaw waaw bi tekki ko mu dem nampali ay doomam delu ci wat lolou du yermande bokk julit mu tekki ko mu dem nampala ay doomam delu ci wat yonente bi alayhi salatu wassalam ci yermande ak ci mbaxam muni ni naa ba xaar sàmm bi dikkaat bu mu ba xaar bi ñew mu ne ko waaw ndax doo ko jaay lu tax mu bëgg koo jënd lu tax rasulullah bëgg jënd kéwal gi du pour lekk ko de ngir yewi ko mu dem wuti jëli ay doomam sàmm bi ne ko may naa la ko yow rasulullah may naa la ko yow mi yàlla yónni yonent bi ne ko kéwal gi acat lagal anas mi nettale xadis bi nee na ba kéwal gee daw dégg nañ ko muy wax laa ilaha illa allah kooku mooy rasulullah moom jamono jii nu toll ci la gare woon àdduna benn bés dox na ba gis ak garab goo xam ne am tàgg moo fa wadd ay cuuju pitax di fa ciib ciibi mu ñëw rek mel ne ku mer ana ko waddal lii jël leen ko ngeen aj ko ci kaw saxaaba yi daw jël ko defar ko ba mu jekk ajaat ko ci kaw kooku mooy rasulullah yërmande la ci ñépp yonent boobu nag moom moo gën a jamono ci jamono ji ñu toll fu nu tollu nag ci jamono ji nu tollu ci jumaa yeeg ci jàkka yi ñu ngi wane ak mbëggeelam ak top ko moom yonente bi alayhi salatu wassalaam bëgg yonente bi nag farata la ci bépp jullit bëgg ko farata la ci bépp jullit ndax yonente bi moo ni kenn ci yéen du gëm yàlla foog na ñépp ay jullit lañ koo ci janool ci jàkk ji ne ko gëmoo yàlla da ngeen rayante waaye nag yonente bi moom wax ni kenn ci yéen du gëm yàlla lu dul man Muhammad dama koy gënal ay waajuram daf may bëgg ba man ma gënal ko ay waajuram gënal ko bappam gënal ko ay doomam gënal ko mboolem mbindeef yàlla bind yëpp feek jullit bi àggagul fii àggagul ci gëm bari na nag ñoo xam ni soo tuddee rasulullah ñu ne est-ce lu ñu yor mën nañ la ko jox loolu ak baax am na solo ndax ñu tudd ki nga bëgg nga yëngu am na solo waaye yemul foofu kepp dafa àgg ba ci di ko topp ci lépp loo xam ni da ko digle di ko topp ci li jëf ndax yonent bi moo gën a yey ci sa bopp yow annabiyu awlaa bil muminina min min anfusihim tey boo jëloon décision def sangam yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni bu ko def defal sama yii sa bos valaa baletul bosub rasulullah moo valaa bël noonu la ko yàlla def dogalee kon mbëggeeluk yonent bi nañ ko wane d'abord ci jëf lim ñu digal di ko roy képp kenn ku ci nekk ki defal teraanga lu nit ki yées yées du ko fàtte mukk ki ko xalal aw yoon ba teg ko ciw yoon du ko fàtte mukk yonent bi nag daf ñoo ji teraanga xalal ñu aw yoon lu nekk daj na ko ngir lan ngir ñu am yërmande borom bi tabaraka wa taala pourtant yàlla wax na yonent bi ne ko li yaxfira allahu laka ma taqaddama min dambika wa ma taaxar yàlla jéggal na la bakkaar yi nga jiital ak yi nga jëfagul yàlla baal na la yow kuy dem aljana ëllëg nga kooku bu ko neexoon toog croiser bara bras ñaata yoon la jiita xare di rayante ngir lan jullit ñi mën a am liberté di rayante ngir lan yàlla jéggal jullit ñi di rayante ngir lan yàlla yërëm xeet wi yowmal qiyaam dañuy daw ci yonent yi di wuti wàllu ndax metti na yonent bi ñéppay jooy naan sama bopp way lii way lii yonent bi kese mooy woo naan ana sama xeet mais ku dul rasulullah ñéppay taxaw naan man fu ma jëm baay ji la jur dangay daw ci moom mun la xaw ma la yaay ji jur dangay daw mun la xaw ma la mennum rasulullah moy taxaw ni ummati ana sama xet bi ñan ñoy xetu rasulullah moy ñiko ko nangu woon topp ñi nangu won jëf ay ndigalam amna lambu ju fi masa am bëre bu fi masa am mbeur ma doon bëre ci jënd am mbaxana sol ko ba lambu ja jexé dañu wax ni ndakaru mbaxana manké na fa ndax ñepp ko jënd ana ñan ñoko jënd mooy ñii ñu tudde ay fansam ñu ko bëgg moonte doy wuñ mbaxana mi dara waaye bëgg nañ ko rek pour wane mbëggeel am na meneen mbër muñ fi duma woon ba ay bëtam yàqu mu taf ko gannaaw ba loolu weesoo ca suba sa dañoo jënd ay taf di taf seeni bët ñan la ña ko bëgg waaw rasulullah mi ñu bëgg nag ndax ñu xool fu mu tegoon tànkam ñu jëm faa teg seen tànk ñun ndax duñ xool lim doon jëfe ñu di ko jëf ñun di gëstu ay mbiram ñu ci baree baree bare amatuñ jot fi mu toll nii ndax lan équipe sàngam mooy football damay dem seetaani sama fans bi sama équipe bi bu ñëwee ñu ko match bi jeex na sax mën naa jooy mën naa am problème mën naa turbale ci kër gi parce que mi ngi suivre kooku mu bëgg kon nañu suivre rasulullah di ko roy di ko top topp walakum fi rasulillahi uswatun xasana yenen bi yalla nena doyna len sekk ngeen di ko roy waye ñan li man li man yarju allah wal al akhir ñi yaakar yalla ak al qiyam ñoo ñu yoro rasulullah lego lek mbokum julit nga dégg ko ne la waw yow señ bi lu sa tobe ji nga gattal ko masalan lu nga gattal sa tobe ji yen ibadu yi lu ngeen gattal sen tobe yi masalan mu tontu tontu bi moy ah man da yonent bi yàlla bi moo ko digal ndax wax na ci xaddis sàngam ak sàngam ñi ci gën a bari luñ lay tontu ah yéen dof ngeen rek ak seen sikki mi ngeen di guddal xanaa booba fàtt nañu rasulullahi moo ko digle daan ko def képp ku bëgg a nuru nuru rasulullah xoolal ni meloon ci jëmm ak ci jëf nga fexe mel noonu ki nga bëgg noonu lay mel ci yow kon ndeke eskay ak joxe alal dong doyut ci mbëggeeluk rasulullah wane ko waaye dafa àgg ba ci li muy def ma def ko mel ni rasulullah mel ni moom fu mu teg tànkam ma teg fa sama tànk loolu mooy bëgg yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu moo tax nag yàlla wax ni yonent bii day maako yebal ci yéen mu bokk ci yéen nekk ku leen yërëm lool bëgg leen lool waaye nag bépp coono bu mu daj ci yéen da koy muñ azizun alaykum waaye nag xariisun aleykum xir lool pour ngeen gëm yàlla xir lool ngeen am yërmande yàlla bil muminina raufur rahim waaye nag yërëm lool jullit ñi yërëm lool ñi ko nangoo topp ti bi alayhi salaatu wasalaam mbokk jullit yi mësul dégg ci boromam loo xam ne day jëriñ nit ñi mu nëbb ko da ngay dégg ñu ne la yonent bi jibril ñëw na ci man léegi nee na sama borom nee na lam lu mu wax boromam dako wax xewal gu mag mu na naa ko wax yéen ngeen jariñu musta neub dara lu bax lu bon lu mu xam luy lor nit wax nako nit ñi pour ñu watani ko mo tax yàlla mi xam àddu ci alquran ni qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم rahim يوم محمد وخال yow muhammad waxal xeet wi ni leen man yàlla ma bëgg leen su fekkee dañu bëgg man yàlla ma bëgg leen nañu la topp nañu la topp mooy foo teg sa tànk nañ fa teg seen tànk su boobaa day yuxbibukumullah yàlla dina leen bëgg wa yaxfir lakum dunubakum ba nopp jéggal leen seeni bàkkaar kon noonu la ñuy wanee ak mbëggeel ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la ñuy wanee ak topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nu xamee ko noonu yonent bi alayhi salaatu wasalaam yërmande la ngir xeet wi yépp li ñu bëggoon a wax ci ay jagleem bari na lool ba mënul xaj ci benn xutba xëy na incha allahu taala suñu beneen xutba ñu jéem a mottali wax ay lenn jagle yoo xam ne yàlla jagle na ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam